ah yow. ma taxaw champion mag bi 10 000 problème 10 000 maa lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay bu wér a wér di la ziar di la màggal. lu waral teewaay bi. waaw tey xam nga rek sama sama sama champion sama xarit sama doom nday Pambay bu Ersan moom mu indi woon fii tey xam nga di ko seetaan si au passage nag di ci bëggee gars yëpp di leen ziar bu wér di ko ñaanal yàlla mooy ko ndam bu wér a di wax mbiru Thiès li ñuy xaar ci man. 10 000 fan la toll. instant maa ngi déglu gaay rek. maa ngi déglu gars rek. ku sa xel nekk. ma jox bëgg naa. nay champion rek ku ma jox si champion rek bëgg naa ndax temps dama am ku ma yor koo xamante ne xool manqué wu ma dara muy xadi tëyër borom petit mbaaw ñaw rek lay def dinaa la booleeg moom mu ñawal la lu rafet jox la ko. yeex na mais ñen ñooy champion yi. tuddal ma tur wala da ngaa ragal. waaw mais rek yi Modou Anta bi. maa ngi moom combat ko dàq. laay goote. combat ko dàq. 10 000 xanaa da ngay xaru. barke Nabil Moustapha dama koy duma dama koy daan. laay mi daanoon mbay guy gi. billaahi dama koy duma dama koy. laay mi daanoon tonnerre déggoo ma xanaa dama def. 10 victoire benn défaite. boo yooyu taxuñu maa jug. yow nga romb soxar kale. romb am ni nogay ñooñu mbër ñooñu ay dar toppe lan nee na ñooy champion yi Thiès yi du ñooñu ay ay dar toppe lan alxuraanu karim foo ko teg ay dar toppe lan musuñoo bëri lu ma jaaxal te duñ bëri lu ma jaaxal am ni noo koy meen ñooñu du ñuy mbër barke alxuraanu karim taxuñu maa jóg te suñu géewaloo dama leen duma duma yu jaawale woo ko am ni noo koy numéro tam man fii lamb kaw ba suuf ku ñëw dama koy duma dama koy daan barke alxuraan boo yëpp laa xam jëree càq moom dégg naa ñi ma woo koo ñooñu ñëpp ku ci ñëw dama lay may wër ndomba wala ma jox la tànk barke alxuraanu kariim kere ceeq mi nga xam ne boo takkee bët yi day day doo ma bàyyi doo ma bàyyi ñooñu du ñuy mbër barke yàlla da leen a joxagul mbër champion baa ngi nii ñooñu alxuraan looy wax Sidi Diakhaté ak Assane Ndiaye waaw di ko déglu rek di leen wax ne xaloon maa ngi nii avance laa xaar ku ma jox avance damay bëre ñoo ngi lay jaajëfal jaajëf waay